jërë ngeen jëf ci seen àndina ak le buzz du web la meilleure chaîne du net la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk yi ñu ngi leen di di am mbégte kontaante saa euh, ci di àndoog yéen ci ay jotaay waxtaane sàmbar lépp loo xam ne actualité la di li waral tey a aussi d'une manière générale lépp loo xam ne rek jàpp nañ ni jaadu na mu ci kàddoom ci réew mi di li waral euh, Senbuzz seet si ko tey Papa Lamine xanaa rek di la xamal ni euh, mbégte la si ñun ñu am ak yow ñu ngi lay gërëm di bu baax a baax ci jotaay bi ak disponibilité bi. congaan mooy ma leen di delloo seen wàccuwaay. Mhm. di leen gërëm di leen sant. jërëjëf Ndiaye. man ubbil naa sama kër ñëpp képp koo xam ni nii bëggoon a am xibaar. jërëjëf mën na ñëw. Mhm. ak lu mu mënti concerné d'ailleurs damay faral di wax euh, ñu fi ñëw. Mhm. ne leen lépp loo leen ma laajoon baalu ma leen ko. c'est clair yal na doon àq ci yéen bokk. dëgg la xam nañ ci parce que aw lu may lu may nëbb. jaaree foofu nuyu euh, mbooloo bi nga xam ne nii ñoom dañuy jàkkaarlool euh, te ñu ñuy seetaan yenn saay euh, bëgguñu lool wala ñoo xam daal considération bu ñu am ci ñun dale ko nag ci sëriñ si hmm. ci ñi nga xam ne nii du ñu jóg te di ñuy ñaanal hmm. lu tax loolu parce que ñaan yooyu dañ ko soxla français dafa wax ni hmm. méfiez-vous de l'œil et de la langue car plus l'œil admire plus la langue flattivante et plus le bonheur se fait vulnérable à le voler et s'affaiblir muy lan moytu leen gët ak làmmiñ gët c'est le pluriel de bët bët kenn wax ñaari bët gët lañ koy wax mooy pluriel bi mhm. ndax lu bët ne toq làmmiñ dana ko tudd booba moytuwul mu laatukan très waaw te loolu mhm. boo seetee alxuraan mi ngi ci mhm. jamono yenent bi euh, def ci doon muslu moo waral euh, falaxi ak naasi mm-hmm. euh, loolu moo lay won ne la mm-hmm. ñu bari ñu ngi faatu ci àddina bi te dara yóbbu leen lu cat waaw man ñi wut bës nag d'accord ñiy wut bës. Mm. yaa ci gën a yërëm. d'accord très bien. yàlla nañu yàlla musal muccal ñu ci bës. amiin yaa bi très bien alors euh, tonton pour commencer je suis un peu parce que dama xëy dégg ñu ne euh, Père Lamine Ndiaye gravement malaat foogoon naa ne vraiment du ma la fi fekk sax donte ni sa kër laa la fekk ndax mën nga ñu indil un peu ci ay leeral ci li nga xamee ni jamono yi ñu bari ci askan bi aussi jàpp nañu ni mooy li am. waa xam nga muy yéen. Mm. maanaam su ma nee waxuma leen yéen ñii directement parce que gis naa seen titre yi ni muy demee. mais am na ci yenn euh, plateforme yoo xam ni. Mhm. pour jaay seen plateforme. Mhm. ak am koppar jaral na leen titre boo xam ne nii c'est pompeux maanaam dafay am doole boo xam ni ku ko gis rek dana ubbi seen plateforme ndax loolu moo leen di may xaalis. ok donc suñu waxee Lamine Ndiaye gravement malade. Mhm. Euh, te fekk Lamine Ndiaye booba génn na hôpital te kenn fekk ko fa du dërëmu kenn naa fajo sama njaboot seen bopp samay doom ñoo ma fay lépp lépp lépp jëndal ma médicament yeeg yooyu d'accord que dama xëy benn bés mm. comme ni ma la ko faral di waxee def naa yow xam nga ko mm. sax mm. ay trois quarante cinq lay yeewu julli ñaari rakk di wér di ba fajar bu fajar jotee ma julli toog tuuti julli suba bi ma demee ci toilette yi pour singuwaay singuwaay mooy tuur ndox. Hmm. alors loolu ma jékki-jékki rek sama muscle yëpp bloqué. ok xam nga c'est inquiétant. Hmm. sama jabar moomu fa fekk parce que eh, dafa toogoon ci ak sa daan ne kii de euh, yàgg na ci douche. te daawul yàggee nii si douche waaw waaw oh, jàpp ñëw julli. Hmm. comme ñëwagul julli ba léegi man jaaxal na ma bi mu ñëwee rek di ma njër du seet ba xam. lu ma nekkee ak lu tax loolu. mu gis ma man sàcc taxaw. ok xamul lu mu kii donc euh, ci saa si mu defar ma ba pare bëgg ma jël yóbbu ma ci néeg ma diis ci moom. mu daw ci appartement bi ma jàkkaarloo. Hmm. foofu samay doom ñëw fa nekk. d'accord donc ñoom ñoo ñëw. Hmm. jagat jagatee ma dugal ma ci néeg bi. ok solal ma yëre automatiquement noonu laa jubalee hôpital. d'accord ñu hospitalisé ma sur le champ bi gannaaw bi ñu ma seete. d'accord ba pare daal di commencer perfusionner. d'accord kon c'était un peu grave quand même Père Lamine nga baal ma quand xawoon na la sonal feebar bu métti woon la aussi. mais mais yu taxaw kay. ok yow xam nga c'est douloureux. ba léegi def ma topp. Mm-hmm. parce que dañugul carrément. d'accord. Euh, ma dem foofu aussi ñu may perfusionné. Mm-hmm. donc euh, perfusion yooyu aussi tamit euh, dafa métti parce que léeg ñu bënn ci loxo yi. foo xam ne nii. Euh, soo buggee dem toilette. ok te bëgg raxasu doo ko man kii il faut ñu root ci waat ko. d'accord ma on l'a fait deux fois. mais yooyu yëpp pour faj ma la. d'accord donc euh, je l'ai compris comme ça parce que man j'ai une grosse et grande philosophie. xëy na mhm. ñu bari la ñuy dégg grosse mhm. et grande. Mhm. yaakaar ni pléonasme la. c'est clair micro bi tuuti je le conçois. je le conçois. te admettre naa ko ndax bu ñu ko laajee mën na ko expliquer ci wolof. d'accord. alors mën nga ñu wax vraiment ndax euh, jamono bi nga xamee ni nekk nga hôpital. Mhm. xaw nga fay yàgg aussi parce que gis nañu sax ñenn ñi di wax ni vraiment lancé nga SOS pour que première dame dimbali la yu demee noonu mën nga ñu wax dur bi nga fa def mais aussi ndax SOS bi ñu bëggoon a lancé pour yow aussi loo sollicité woon la. non non non lancé wu ma benn yoon SOS. Mhm. déggoo li ma wax ne samay doom. Mhm. ñoo fa fay hospitalisation euh, hospitalisation bi. jënd médicament yëpp ma ba hôpital bi yaakaar ni wér naa wala hmm. tànne naa ñu génne ma je sorti à une semaine de la tabaski mais séquelles yi dafa des moom laa la expliqué léegi ne la muscle yi hmm. day jàpp des fois fii ci mollet bi hmm. jàpp ci cuisse ba jusqu'à présent maa ngi koy yëg euh, dañ ma conseillé sax pour ma wut benn kinésithérapeute d'accord pour mu di ma masser D'accord. Yo-yo. Mm. Mais comme euh, j'ai assez dépensé de l'argent mm -hmm. mes, enfants, mm-hmm. je ne pas encore taper sur eux. Voilà, dit que yo-yo. Tu as euh, à l'hôpital aussi Combien de temps tu as fait yag, tout okay. Parce qu'on en paye par jour, on paye par jour. Mm-hmm. Et le temps que j'ai mis là-bas, chaque jour, je compter. Je compter. Donc, euh, j'ai payé vraiment une grosse somme. Donc, euh, hormis ça, samay doom sax ñoom bu ñu déggee nii. Mhm. loolu kii dañ may woo téléphone fii di ma wax naan mais pas eh, ñun la ñu bëgg nga faju yow. dinañ la faj baal ma nga yëkkati li mu ñu jaral mhm. lu mu ñu jaral. dinañ ko def dégg nga parce que noonu nga ñu tamal noonu nga ñu yare te loolu la ñu xam. ñun de mhm. questions de dignité et d'honneur c'est très important pour ñun. cependant. je nie pas euh, le geste de Malick Gakou ex-ministre dégg nga ki a promis de venir hmm. me rendre visite mais pas ay jox euh, ndimbal ak yooyu quoi d'accord ba pare ma préciser hmm. j'entends tout le temps nit ñi di wax ay ndimbal ndimbal yàlla moo ko moom mais li mu may nit xam nga lan la hmm. mooy jàppale donc boo amul maqaama dimbali kenn pourquoi utiliser sa moo dimbal parce que fii dafa bëri surtout koo wax mu daan ne maa ko dimbali maa ko dimbali maa ko dimbali ba mm. Mm. bu doon faj sax wala mu jëriñ ko ko dañ koy mujjee gedd ndax seen jom may la ñuy dégg le mu dimbal absolument li gën a rafet nañ wax jàppale d'accord très bien alors père fi may génnee ci question boobu ndax mm-hmm. vraiment gisoo ni aussi c'était normal ak li nga jot a liggéey aussi sur culture quand même bu dul carnet d'adresse aussi bu ñu ne tonton Lamine Ndiaye feebar na première dame bi nga xamee ne moo yor benn fondation boo xam ni bokk na ci li ko tax a jóg dimbali wala jàppale yenn ci artistes yi entre guillemets ndax jaaduwul woon vraiment même bu dul dara doonte ni soxla woo ko aussi am ñoo xam ne dina ñëw pour appuyer ci sa feebar bi. waaw kooku moom wareefam la xam di ko def. Mm-hmm. sans tambour ni trompette moo tax mu créé créé fondation boobu. def ko ngir ngistal mm-hmm. et moi bien li muy def. tant qu'elle reste. Mm-hmm. en fait dans dans ce di def te bariwul coow. d'accord parce que bu fekkee noonu rek dañ ko doon topp tey ñu bari fii ci Sénégal gëñu ma yeyoo yooyu mu yoxe mais c'est clair lañ liñ liñ ko gis-gis bi gis-gis bi ak ñaan dimbali nañ ko ba dem faj kook nangam il faut plus en parler. nanga mm. non non nañ ma bàyyi man am naa ñu may faj. d'accord. samay doom. laajoo kenn ndimbal laajuma kenn lenn. ok <coughs> dégg nga. <coughs> Mhm. laajuma kenn lenn. je précise bien. Mhm. ku ñëw indi jàppale. Mhm. mën naa ko jël mais ndimbal daal jërëjëf. d' accord très bien alors très bien nga nekk koo xam ne dootuñ la présenter ci culture na ci li nga xam ne mooy cinématographie mais pour commencer Père Lamine ndax am na vraiment ay inconvénients yu nekk ci def production dama bëgg a xam entre guillemets un peu ci li nga xam mooy réalité wu producteur wala nit ko engagé wu pour def production inconvénients yi si nekk. inconvénients yi mooy. am na producteur yu bëree bëri bëri bëri yoo xam ne nii. Hmm. Euh, dañuy indi produit tànn la yow ñëw daan ne la bëgg naa tourner produit bi yow. Hmm. ak yow. Hmm. budget bi man maa koy joxe. am na ñoo xam ne nii des fois dinañ la wax budget bi ñaata la. ok signé yow contrat. Mm. boo nangoo. Mm. wa illah ñu ne la euh, non comme waxtaan budget bi. d'accord bàyyil ma jël responsabilité artistes yi pour di leen fay. wala loo leen soxla ngeen laaj ma ko. ci mm. budget bi parce que j'ai le budget. ak euh, mu def ci li nga xam ne daal loolu ngeen waxtaanoon ba d'accord. ok léegi. question yeneen yi ci am. moo di. bu fekkee ni jóge nga loolu en tant que producteur souvent daf koy wut koo xam ni nii mooy gérer budget film bi ok alors ñooñu ñoo koy gérer ñi nga xamee nii aussi ils veulent pas toujours respecter ce qu'on a mis en fait dans le maanaam li ñu waxtaan ba tënk ko ci kayit d'accord ndax dañuy sàmm alal ji nga xam ne nii dañ ko war a def ci film bi waaw sàmm googu nag càmm mm. googu mm. mooy indil yenn saa yi nga laaj leen sax xaalis su def dara ñu ne la déedéet yorewuma ko wala dangam dangam def leen nii. ngeen waxtaan ba mu nangu. génne jox la. père si je comprends bien. Mhm. Euh, pour nga def production da nga war a am xaalis bu tegu. pour na serait-ce que respecte acteur acteur actrice yi mais aussi sa production d' abord c' est ça. waaw comme ni ñu koy defee du da ngay def production toog di xaar xaalis am pour nga continuer ko pour nga def production dafa war a fekk nga am xaalis ba pare. Ah, euh, yi. Mhm. banques yii am confiance ci ñoom ñu mën leen a euh, jox xaalis bu ñu tourné. ok am na nag ñoo xam ne ñee xëy na seen kees taxu koo yaaññe lool. d'accord dañuy ñëw waxtaan ak yow. en mhm. tant que producteur ne la kat man bëgg naa la jël sam film. Mhm. waaye yorewuma xaalis. boo accepté ngeen waxtaan ci cachet bi. Mhm. mu mel ni bu la doon fay soo leen ci d'accordé. d'accord yow nga bëgg a tourné nga tourné. def filmam. après léegi. bu yoree xaalis mu hmm. fay la d'accord alors ñu am tendance wu di dégg ci Sénégal quand même yu bari di wax ni liggéey naa ak benn maison de production sans contrat ak yu demee noonu naka nga jàngatee loolu mais aussi lan nga jàpp ni souvent aussi mooy propos mooy pousser yenn ci ci acteurs yi ñuy nangu di liggéey façon boobu. parce que production fii moo doxul. bu fekkee ni production mooy indil xaalis. Hmm. artistes yi te production doxul. Hmm. dañu ñàkk xaalis te ci li ñuy yaakaar mu seen liggéey xam nga comme doxul. comme il le faut. Mhm. il faut ñuy soxla xaalis bu weer dee. ok ngir dañu am njaboot. Mhm. am ñu yaakaar ci ñoom te bokkuñu sax ci njaboot gi. Mhm. wala xam na jaay nit ki mu nit ñi yaakaaree ko daraja boo xam ne ci wàllu am-am amu ko sax. c'est clair wallaahi. donc amu ko walla fayeeku loo xam ne nii. Euh, mën na aussi tamit jàppale nit. d'accord ci lii wala ci laa. ñi nga xam ne ñooy taxaw di baat rek. ñooñu je ne pense pas que ni artistes yi bokk nañ ci. wala ku koy def man mmh. xaw ma foo jëlee sa xaalis. pour battre. Mmh. parce que comme production bi doxul te de tout le mmh. temps dañuy tourner dégg nga fa ngay battre xaw ma foo ko jëlee. d'accord. alors et il faut l'éviter d'accord père ni inconvénients yi ñi ci gën a nekk victime mooy ñi nga xam ne ñooy acteurs yi parce que baril nañu di gis Sénégal quand même c'est pas la première fois ay acteurs yi génn di dénoncer ni vraiment joué nañu ma fayuñ leen seen xaalis mu ngi des ci maison de production bi wala entre guillemets ñi nga xamee ni na euh, ñoo ko jëloon pour mu tourner loolu aussi lan nga ñu ciy xam nga lépp mi ngi nekk ci déggoo bi hmm. déggoo bi ngeen ko siife ci kayit su boobaa lépp loo xam ne nii doxul hmm. yoon may la leen yéen ñaar hmm. ci ki mu doxul bu fekkee ni mbir mi naqari na ko war a war naa indi coow. Mhm. mu jokkook police wala mu dem tribunal. d'accord pour loolu. ñu mhm. fajal ko ko. d'accord que waxuñu kenn mu fajal boppam. Mhm. lëf daal bu la naqaree. booy nar a indi problème. au lieu xeex di fa am wala jàppante yooyu loolu ñuy éviter moo tax ñuy dem ci yoon. d'accord mais yóbbu yoon nit. te fekk mu amoon yéene. jox la. waaye yàlla joxu ko pour mu jox la. Mm. doo muñ doo adapté benn système. absolument alors man aussi. Mm. li tax may wax waxtaan ak kii ak yooyu. Mm. du ma siifee contrat du ma siifee contrat la plupart du temps. lu tax parce que xam naa ni mënuñ ma fay. ok mënuñ ma fay te amuñu xaalis bi ñu may fayee waxuma ni man dama rëy. waxuma ni man dama cher. wala hmm. dama leneen. Hmm. dama ñam bitim réew. gis nañ fay toppatoo artistes yi. ok yi parce que y a une différence. c'est hmm. pas les comédiens comédiens yi ci beneen fànn la te même bu dee comédiens yi. aussi ñem naa boobu xam naa lu ci nekk. moi je préfère. jokkonteeg waa bitim réew. di jouer ak ñoom ñu fay ma lu ko jar au ma toog fii sama dëkk. béy fi sama xam-xam dégg nga wala ma làcc fi sama xam-xam. d'accord ah pour di fayee ko. parce que duñ ma fay lu ci jar. Mm-hmm. donc euh, waaxu gaaw dañ ca bëgg. c'est waaw mais bu fekkee damay bëgg leen di ca daagu. Mm-hmm. je préfère vraiment ma wut ay conditions yoo xam ne nii. c'est allégeant. Mm-hmm. maanaam xaw na nooy. d'accord ngir mën a des sama réew. parce que xam-xam bi sama réew laa ko jëlee. d'accord Euh, pour avancer rek nga baal ma la Lamine li ma bëgg ñu waxtaanee ko dafa bari ndax jàppoo ni quand dafa xaw a contradictoire un bu ñu demee ba à chaque fois du ñu wax ni scénariste bi wala ki nga xam ne mooy directeur artistique bi mooy nekk euh, victime par exemple acteur wala artistes yi d'une manière général ñoom ñooy génn quand di faral di jooy ni seen xaalis des na fa loolu aussi noo ko jàngatee. waa xam nga lépp ñu nekk ci ndorteel bi. Mm. fekkee ni waxtaan ngeen ba d'accord ci kaw kàddu. Mm. la ngeen waxte mm. waxtaanee. na ngeen ko. respecté coow du am. bu fekkee ne am na lu ci dëng wala lu ci yànq. d'accord mën na indi xel ñaar ci bopp nit ki. en général xel ñaar yooyu moo tax nga dégg ñuy wax di wax di wax ak a waxaat. d'accord euh, YouTube bi fees dell ki wax. Hmm, ay revendication hmm. benn ci man. Hmm. waaye damay ñaan yàlla. ngir yàlla ñi nga xam ne nii seen problème. xaw na nuroog sama bos dama ne mm. xaw na nuroo ba tey nuroowuñu journaliste yi nga xam ne ñoo ngi dem di leen poser question mm. ngir yàlla ñu bàyyi sama tur bi ñuy jiital naan comme tonton Lamine doon na li eh, kii lii nangam nangam. parce que dañuy indiwaat coow la wala ñu indi xuloo. d'accord man neexuma. justement ci la ci laa bëggoon a ñëw sax revendication yi nga defoon ci ki nga xamee ni mooy mooy mooy Sanex wala ci troupe Soleil Levant bi nga xamee ni jot nga liggéey ak ñoom lan nga ñu mën a wax vraiment ci lan moo la poussé wala entre guillemets lan moo la motivé ba nga xame ni euh, sa kàddu mujj na ci li nga xamee ni mooy internet bi. li ma motivé woon. Hmm. au départ jóge na ci Sanex puisque moom mooy directeur artistique ba. Hmm. Euh, bi ma njëkkee contacté ci wiir wiir yi dafa ne ma carrément ne ma dañu bëgg boole leen ci biir moo tax gis nga ci Golbert dem si yàlla yàlla na ko yàlla yërëm gis nga ci yeneen i kanam yoo xam ne nii. tàmmuñu woon di jouer ñoom parce que ñoom yi neen la woon seen biir rek la yem. mu wax ma ne ma. Mhm. li nit ñi di wax. waa jubóowuñoo ak nangam nangam te lii c'est une famille. ok vraiment euh, la ñu dindi ci bopp nit ñi. walla ci xelu nit ñi. loolu ma saluer ko lool. parce que man mosuma woon yaakaar tourner ak ñoom mosuma woon xalaat bés ni dina ñëw ba wax ma lool. ok alors comme ñoo bokk léegi li ñuy jooytu j'ai dit waaw amul problème bi ma ñëwee. Mhm. ñu bëgg a waxtaan affaire xaalis il faut ñu xam sa cachet yooyu may leen non. ci wiiri wiiri la loolu ci wiiri wiiri ci wiiri wiiri. ok may leen non. man mhm. affaire xaalis. du ma ko waxtaanee du ma jiital xaalis sama sama dund. lu taxoon nga nangu loolu d'autant plus que professionnel nga. du jiital xaalis mais bu fekkee ne xaalis bi dañ koy jëriñoo. Hmm. pour faj suñuy soxla bopp. Hmm. Euh, maa ngi ak sama kër jooyu ma dara. maa ngi ak samay doom jooyu ma hmm. leen. donc ba fu yem neex. man mën naa jouer may la ko. dara ci man. parce que déggoo li ma jiital nee naan ni ñu fay ma man ah il faut se lever du bon matin. te xam naa ni yoruñu xaalis boobu. xam naa production fii seen xaalis il faut il faut voir rek nga xam fan la war a toll très bien tu devines automatiquement très bien nga continuer ci wiiri wiiri waaw waaw mm, mm. léegi donc euh, ci loolu mm. la d'accord jox ko sama kàddu man su ma la xasee ba jox sama kàddu ju respecte ça donc costume yi ma doon sol yooyu yëpp tout ça man maa ngi jël sama armoire ñëw indi ko ci tournage bi su ma neexoon ne leen da ciy bokk parce que su may dem bitim réew aussi tamit di tourner ak yooyu. Mhm. dama loolu da ciy bokk. loolu tax ma wax la sànq ne la moo gën a duun. Mhm. alors noonu laa demee ci wiiri wiiri. Mhm. donc biñ ci demee demee demee demee ba wiiri wiiri bëgg a jeex. Euh, Aziz moo mu ne ma tonton man sa jeu bi vraiment neex na ma quoi. waaw doo ñëw bokk ci Diamond House Diamond House. j'ai dit Diamond House mu ne waaw ñoo ngi koy tourné d'ailleurs sa gaañaa ngi mbuur di tourné mm. ma ko ah mu ne ma way mm. ma ne ko loolu day baax na moom ci waxam mu ne mais ba pare doo ci dugg mm. ma ko ah bon mu ne ma ma ne ko soit parce que looloo ma tax a jóg mu bëgg ma wax affaire xaalis je lui ai dit ñett bu ñu waxtaan affaire xaalis. parce que xam naa soo gisee may wax loolu. xam naa même propos yi nga defoon ci wiir wiir yi moom nga defaat ci Demon House. waaw waaw ma wax loolu. Mm-hmm. alors bi ma waxee loolu dama jékki-jékki benn bés ñu woo ma convoqué ma. ok ne ma da ngay tourner euh, Liberté 6 d' abord j'ai pas commencé à Mbour. Mmh. après Liberté 6 Mbour la ñu dem tourner ji donc ma am ci seede yu wóor. Mhm. parce que falaa fekk Tafa mu toog euh, moom it dafa ñu woon pour tourner Tafa Diop dafa ñu woon pour tourner. Mhm. bon euh, ñu tourner Mbour après dellu si. Ah, donc yooyu yëpp. Mhm. Euh, ci Diamond House. ci Diamond House d'accord waaw je l'ai commencé mhm. euh, waaw ñaari ñaari tali Liberté si yi. Mhm. am na benn immeuble foofu bu ñu nekkoon. d'accord foofu la ñu njëkk commencé tourner Diamond House. d'accord kon kon du yow yaa opté wu woon pour bokk ci Diamond House. mais ay propos yu la yu la Aziz Niane sa jeu. daf ma neex lool. d'accord tonton. Aziz dañoo déggoo. parce que mais Sanekh moom le contraire la wax da nga baal ma Papa Lamine Ndiaye moom jàpp na ni yow yaa sàkk woon pour jouer ci Diamond House aussi am na ay conditions yu ñu la teg leen aussi loolu aussi. du ñàkk nga ba ma mhm. ñu continuer euh, kii. Mhm. c' est lui même en personne moom ñëw ne ma dégg naa ni tourné nga fale. ma ne ko waaw mu ne foofu it am nga fa cachet. moom moo ma ko wax. donc su fekkee ni demee woon na loolu kon <laughs> wax jooju nii wax naa ko ci émission guddi yi donc euh, mhm. je ne vois pas mu raconter loolu neneen d'accord mais yooyu yëpp day indi wax d'accord comme fay nañ ma mhm. dégg nga ñu gas ko suul mhm. na xóot nag na su ma nee na xóot c'est-à-dire moom aussi na bàyyi quoi buñ ko laajee waa problème mu Lamine Ndiaye mu mel ni man maay euh, manitu ñeneen ñi am réagir dégg nga ku bëgg a réagir yow yaa xam yaa am sa problème nga réglé ko ak ñoom d'accord justement problème mu Lamine Ndiaye uh-huh. ak kenn kiyam balaa may ñëw ci man bi nga xam ni moom moom Cheikhou Gueye Sanékh def na ko ñu bari dañu ne aussi vraiment da nekk benn bouchon de déclenchement dafa mel ni daal yaa influencé quand même euh, ñu bari jamono ji ba ñenn ñi jàpp ni dañuy acharné wu ci soleil levant. loolu aussi du ñàkk nga am ci xalaat. non non non. <laughs> parce que xëy na nag tombé waral ay gaaf kër la. non expression bi nga utilisé boo waree la sax quoi. bouchon de déclenchement. <laughs> gis nga congaan. Uh-huh. dara jëy Serigne Touba Mbacké. billaahi wallaahi talaahi mm. looloo tax ma wax ni journaliste yi mm. ngir yàlla mm. nañ bàyyi sama tur cëppe ko ci suuf bu ñu def seen interview nañ wax par exemple problème mu Cheikh Ba Cheikh Ba je l'aime bien c'est un gosse qui est bien pour man parce que sama rakk la waaw mais lu tax mu mënuñu wax ne euh, Cheikh Ba aussi tamit da nga am problème ak kii am na problème ak euh, neex wala waa Soleil Levant lu leen ci neex ñu jël ko. d'accord ñoo xam fi ñuy commencé. Mm. mais ñu ne kon Lamine Ndiaye da doon li li mu doon wax boog dëgg la. loolu bu ñu ko ci tegee. Mm. day permettre Sanekh aussi mu dugg ci yeneen ak yooyu expliquer sama problème ak yooyu. te ñu ngi leen di ñaan. est-ce que du li olof yi di wax rek tombé waral ay gaaf peut-être que bi nga waxee. ak fi ba waxee moo xaw a jege rek. mais ñoom nañ jëloon seen courage. ok jox seen kii bu ñu ko ci man ma déclenché affaire. Mm. mel ni dañ ma doon xaar. pour kii Mbaye wax na. moom Cheikh Ba wax na. Mm-hmm. mais problème yi wuute na kenn ku ci nekk sa problème. ngir yàlla. Mm-hmm. nañ leen laaj ñooñu seen i problème te bàyyi sama tur bi ñuy jiital. Ah, di wax naan waaw euh, comme Lamine mi Lamine Ndiaye. Mm-hmm. moom wax génnoon na ci kii bi réclamer affaire xaalis ak yooyu dafa mel ni ñoom. ñenn yi di xaabaabal naan dañ leen singali. kan la ñuy singali. da ngay ki nga xam ne moom nga tolleel xam-xam boog ci mbir mi. ñoom ñu fa nekk yëpp yëpp yëpp laa wax maa leen jiitu ci aar bi parce que j'ai fait plus de cinquante ans kii il faut qu'on me respecte pour loolu au moins te bàyyil ma sama wax mmh. vraiment mmh. qu'on oublie Lamine Ndiaye il a lui assez de problèmes dégg nga mmh. pour ne pas euh, dégg nga kii parce que wax day indi kii rek cat ak yooyu ngir yàlla nañ ma dimbali ci cat yi déclenché wu ma kenn du ma manité wu kenn du ma kii kenn pour revendiquer ay affaire nit ñi wékku ci di laaj seen bos. d'accord nañ jël seen courage laaj seen affaire toppatoo seen i te bàyyi ma man. d'accord d'ailleurs am na ci ñoo xam ne si sax. Mm. wax nañ leen laaj leen bi ñu leen waxee per Lamine Ndiaye lu mu doon kii tudd ñu ma ci kii bi donc cela veut dire que ni waruñu leen tuddal sama tur foofu. buñ ko tuddul aussi man geeru ma ci kii bu leen neexee ñu bañ ma tudd. Mm. mais damay ñaan journaliste yi. boo leen di dem vraiment di laaj affaire boobu man nañ ci génn sama tur. ngir yàlla. déclenché wu ma lenn du yooyu. moom mu daal di commencé di wax kay tamit daal di tontu ak yooyu. nu sommes en train de nourrir dégg nga plateforme plateformes. dégg nga. li nga xam ne nii moo essentiel. tey tey tey laa wax soleil levant. bu ñu ma soxla woon aussi bu buñ ma wooyee billaahi wallaahi taalaahi ma dem tourner. nga dem pour liggéey ci yi nga nangoo woon. mais mais amul animosité. pas les mêmes condition parce hmm. que condition yi mën na changer. faut dire la vérité. donc loolu. mais ñoom xanaa sax bu ñu amee xel comme coow li kii na te saa neex la mu waxoon dinañ dellu si ñu toog bokk waxtaan. le linge sale qu'est-ce qu'on dit du linge sale. ça c'est la li nga leen waxal wala li am métti na leen rek aussi moo tax. xëy na ñu présenté wu ci sa ci sa côté pour waxtaan ak yow. Hmm. nous ne sommes pas des animaux. nous ne sommes pas des je précise bien nous sommes des gens nous sommes des êtres sax. Hmm, hmm. avec une bonne réflexion te yar nañ ñu vraiment en toute sincérité. théâtre bi ñu yee nit ñi nañ ci nangu ñun yeewu bañ topp yooyu. bu ñu toppee journaliste yi fan lañ jëm parce que journaliste mooy kan mooy ki nga xam ne ñëw na. xóotal benn affaire keneen ki ñëw daan ne des na segal xaaral je toucher ça peut-être il va se et wax leneen nga topp ko. lenn génn tant que wax jàng fi des. alors chacun va chercher à comprendre encore beaucoup plus. tout à si d'accord. et c'est ce qu'on doit éviter. ñu bari jàpp ni vraiment am nga ci part de responsabilité ndax nekk nga koo xam ne vraiment. waru woon a waxee ci internet loolu aussi ndax am na loo ñu si mën a leeral la waru ma woon wax muy waru woon a wax ci internet am na kilifa nga am na yoo xam ne vraiment waru woon ko waxee ci télé wala ci penc mi gi demee noonu ñu bari aussi jàpp nañu ne erreur boo def la congaan mhm. bu fekkee ne doxale nañ ko comme mhm. nañ ko waroon doxalee mhm. du ma génn mukk ça génn bi du man maa invité la presse ok dañ fi ñëw xëy na peut-être déggee nañ ko ci weewu béy comme niñ ma ko waxee ok bi ñu fi ñëwee ñu posé ma question ci théâtre bi ma tontu leen. Hmm. ñu ne ma dégg nañ ci weewu béy ne. d'accord waaw ma yëkkati micro bi waaw. waaw hmm. Hmm. donc euh, loolu bu ñu déggee ci weewu bay man ma tontu leen ci weewu bay ok. xëy na weewu bay boobu. <laughs> d'accord déggin wa weewu nag la mais ñii wax naan da nga waroon a wootee da nga waroon a vraiment jéem a xool benn délégation boo yoon yónni waroon nga vraiment. man ma woote ba fatt tarak billaahi dama woote. yónnee message kenn tontuwuma ma yónni kuy liggéey ak ñoom te am naa firnde nañ laaj ko ko d'accord kon woo nga Sanekh lu jiitu wala bien avant que ñu ñu ñu ñu koy xamee. ci dañ ma daan woo. Mhm. même su ma leen woowul. Mhm. te mu bokk ci benn produit. yu fii yàgg na te yore nañ ma logiquement nu ñu waroon doxale mhm. mooy comme ñu ngi yore sama numéro te gëj mën nañ maa dégg ça fait plus de deux ans au moins. mais doo woo nit ki ne ko sa yëf ko kat ñun fàtte ko. waaye fii la toll nangam. waroon nañ la woo di la informer na sa risque par risque. comme niñ ma daan wooyee na ma ñëwal tourné. loolu mooy wax ci. Mhm. mais bu ñu deful loolu. Mhm. man mën naa xalaatee lu ne. d'accord kon li mu wax ci sortem bi bind nañu lettre le vingt cinq octobre bi lañu waroon a faj ak yu demee noonu. yow yëgoo ci woon dara c'est après. ok c'est après. yow yëgoo ci woon dara. no billaahi wallaahi talaahi. Mhm. Mame Matar j'ai fait trente quatre ans ak moom. Hmm. ci Jamra magam moo ñu présenté woon kër gi nga gis ñuy dabax hmm. kër ñu Mame Matar la donc on était côte à côte. Hmm. moom mu def sa neex parce que dafa amoon habitude il l'a expliqué quatorze ans yoo xam ne nii daf ko daan jël du ko boole ci benn fête boo xam ne nii benn xaritam. moo ko doon jox animation bi. ok donc noonu la demee. Mhm. man loolu yëguma ko woon. ba muy dem ci moom aussi man yëguma ci woon dara moom it daf ko déggee noonu mu bëgg a waslu àq. def yi fu jullit. Mhm. waaye daan ne comme ça neex la gën a yàpp il l'a expliqué mu njëkk ci moom. ba mu demee ci moom ba ñëw. Mhm. ak facture boobu muy wax facture bi ci boppam. man yëguma ko woon. donc ci Mame Matar moo indaale facture bi léegi pour man ma wóolu ko mhm. mu nett li ma ni ma kayit yi foofu laa ko jëlee ci moom d'ailleurs sax jox na ma numéro yi d'accord numéro ki nga xam ne nii yoral na leen xaalis mhm. ñu bañ leen la tudd d'accord mhm. alors donc euh, euh, ci noonu la rek les problèmes bi waxtaan ak man et mieux mu mu woo ki nga xam ne nii moo leen yoreel xaalis. Hmm. nettali na ko ci vidéo bi. ni mu ko nettalee noonu hmm. la demee. d'accord bon loolu nag. Hmm. bu fekkee ne naat nañ déformé wax jooju indiwaat leneen. ah sañ naa tontu wax ni mu demee. d'accord parce que wax da koy wax ni mu demee. soo dee nitu dëgg di clamé fu nekk ni dëgg ngay wax te doo wax mukk lu safaanoog dëgg da wax na mu demee. alors ndax am na loo mën a rejeté vraiment loo mën a rejeté ci li nga xamee ni mooy sortie bi nga xamee ni Sanekh def na ko nan nga jàngatee sortie bi ak it vraiment. li nga xamee ni jot na ko. incha allah xam nga aw ma dara lu ma euh, mm. Mm. man dama am njàqare. waxtaan. Mm-hmm. mu ne ma nañ jël wax ji suul ko dégg te nga jël sa xaalis. Mm-hmm. mu yónnee ma xaalis bi dafa ne woon. day ñëw def délégation di suma délégation. Mhm. man wax naa ko sax ne ko waaye yow li ñu waxante woon yëpp duñ ca jaaraat. puisque kat dañ demoon ci presse beeg yooyu. Mhm. mu ne ma non c'est pas la peine. nañ ko regle suñu diggante rek. nga jël sa xaalis et puis affaire bi jeex. d'accord. Mhm. bon ma xam ni loolu la bëgg. d'accord comme ñoo waxoon. te nangu ñu dem ca kii. au moins ñu woo bokk maam Matar. d'accord xamal ko ne ko yëfi kat gaañi la ñu waxoon jox nañ ma ko. d'accord man maa woo Mame Matar. Mhm. ngeen waroon dem ci Mame Matar ngeen laaj ko loolu ba xam kan moo la woo. Mhm. boo leen demee moom dina leen leeral. très bien xëy na loolu bu ko fàttee aussi tamit. Mhm. da ngay kii parce que euh, ce que je constate il a l'habitude en fait de parler en gros. waaw day day lem wax ji ni def nañ lii def nañ lii def naa lii nangam nangam. sans expliquer. plus clairement. ñuy dugg mmh, fi mu dugg ak kii parce que def na lii da nga ëmb. baal ma yëkkati micro papa waaw. Mmh. Mmh. boo ne def na lii. ëmb nga li des. li ngeen def il faut détailler ça. d'accord dañ demoon dans la presse. kon tey bu ñu may wax ne ma euh, bu ñu bu ñu dem ci presse. d'accord très bien alors mu tombé ginnaaw bi nga waxee ba pare Vieux Ba aussi génn ci beneen côté bi ndax vraiment li mu tombé moment bi nga wax ba pare Vieux Ba wax aussi amul loo xam ne mën nga ko ko nangul jàpp ni lu la bett man la non non xam nga hmm. vraiment congaan hmm. man sama affaire hmm. c'est à part c'est clair affaire wu Vieux Ba ñoom ak Vieux Ba la ok wax naa sànq ne looloo tax ma ni journaliste yi bu ñu demee di leen laaj nañ cëppe suma wax suma tur daal. ñu cëppe ko maanaam mm. ñu bàyyi kii bi wax ni dégg nañ. ok Ba di réclamer. d'accord may naa leen sax ñu ne comme ni Lamine Ndiaye di doon mm. rek même comme comme ni ñeneen doon réclamer. yaa ngi dégg xam nga mm-hmm. wax aussi dañ koy dañ koy wodd. absolument waaw. Mm. Euh, dégg nañ diw di lii. Mm-hmm. comme ñu bari di revendiquer affaire xaalis. Mm-hmm. waaw loolu loo ciy wax c'est clair mhm. Papa Lamine Ndiaye moom la rédaction Senbuzz di am ak jotaay mhm. papa ñu doon am mbégte mais fi may jeexalee ñu bari dinañ laaj donte ni wax nga ko problème amul sa diggante ak Sanekh wala Soleil mhm. ndax mën nañu xaar retrouvailles prendre des verres ensemble ci lu yàggul dara sa diggante ak des animaux ñoom buñ ñëwoon tey ne soxla nañ la ci tel tournage billaahi ma def na ma defoon jaar fa ma jaaraatoon d'accord man jàppaluma leen dara très bien parce ba pare li ma comprendre ci métier bi. Hmm. il faut beaucoup de générosité. boo mënul am beaucoup de générosité c'est pas la peine ngay dugg ci làmb ji. ok ci ci géewu théâtre bi. théâtre bi d'accord. alors xam naa sax dinañu am ci lu yàggul dara beneen jotaay gën a waxtaanee cinéma ak tolluwaayam ak évolution bi yëpp. waaw jërëjëf Papa Lamine Ndiaye si sama tur seen bés di la jaajëfal bu baax a baax ci dalal bi. waaw man nag ma leen di gërëm. Hmm. parce que tey may ngeen ma au hmm. ma dugg ci yoo xam ne dama ko bàyyi woon. dëgg mais waxtaan donc moo ma ci dugal. dëgg euh, waxtaan pour li nga xam ne nee nañ nañ ko gas suul. Mhm. man kilifa woo na ma. Mhm. wax ma ne ma nañ ko gas suul. Mhm. comme niñ ko wooyee moom Sanex ne nañ ko gas suul. mais explication yi ñuy joxe nañ jaar ci dëgg rek di ko kii. bu ñu bàkk ci dëgg boobu. parce que dëgg moom jarul bàkku boo waxee nit ñi dofuñu jinne jàpp leen. ñoom dinañ xam lii dëgg. seppi côté. aussi bu ñuy nettali nañ nettali bu fekkee ne mënuñu jàpp lool du ko def bu ñuy nettali nañ jaar ci dëgg na mu demee mais pour am dëgg. nga hmm. ber sa beral sa sa bopp. loolu def naa day indi réero. ba pare di indi jeexi jaax. très bien ñu doon am ah. ci am moom jotaay di leen jaajëfal ci àndin beeg teewlu bi dig daje ci yàggul très prochainement sur la chaîne de leader ak beneen invité fi amaanillah